jubal fi nga xamante ne moom mooy Bargny jóge Bargny jubal si fi nga xamante ne moom mooy Guet Ndar Guet Ndar nag ku ko dégg xam ni dëkku Lebu la waaye itam Guet Ndar dëkk la joo xamante ne dëkku làmb la amateur yu mag a mag ñu ngi fi waaye mbir mag itam fii lañ jógee kenn du fàtte ki nga xamante ne moom mooy Boy Guetnar def na lu ne ci làmb macha allah ba tey jël la retraite am nekk promoteur mais mbokk yi ñu fas yéene leen defal li nga xamante ne moom mooy micro ñëw fii waxtaan ak mool yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy mool ñoom ñooy dem jëri ji vraiment jën yi di ko indi gars yi di mun a jëfandikoo macha allah waaye waxtaan ak ñi nga xamante ne itam ñoom ñooy defar moteuru gaal yi macha allah donc ñoom ñëpp ñu ngi fi dinañ waxtaan ñoom ci combat bu mag bu war a am ce dimanche incha allah ak Konch kon moomu topp ma ñu waxtaan ak gars yi nuyu leen gis ngeen géej gaa ngi nii gars yaa ngi nii fii la ñuy daanee seen doole macha allah. salaamaaleykum yi ñu ngi leen di nuyu na def maa ngi si jàmm xaa dugg àgg ci biir salaamaaleykum cheikh bi ñu ngi nuyu na def waay. mayo mayo bi rafet na de. waaw gis nga mayo Sénégal la de Sadio sant yàlla bu baax. jàmm macha allah alhamdulilah ñu si jàmm baax. mais fii fii mooy sanc bi. Mm-hmm. waaw mooy koñu Mbobaarak fii mooy sanc bi waaw non bokk si gendar gendar boor ba la ngay jëm fii mi ngi sanc bi après gox mbaaj ngay jëm waaw kon sanc bi moo nekk diggante goxu mbaaj ak gétt nar moo nekk si diggante goxu mbaaj ak gendar mais gars yu dem napp ji dafa mel ni fii la ñëw defaree seen gaal yeeg yu mel waaw waaw fii rek ñuy réparé machine nu gaal yi bu sa machine paan nga indi ko fii ñu réparé la ko waaw mais mais dafa mel ni fii tamit sancu lébu la waa lébu yu bëri dañ fi nekk. waaw waaw fii mooy Langue de Barbarie bi fii boo commencé diggante goxu mbaaj sanc bi Gendar Hydrobase ñoom ñooy Langue de Barbarie bi ñoom napp rek lañu def. mais mu mel ni lébu yi itam dañu solidaire à travers le Sénégal lébu yi ñoom yenn saa yi waa Caaro yu jógee taal seen gaal ñëw waa bari ñi jël seen gaal ñëw fii. waaw moom daal boo xoolee ci wàllu napp amul frontière des fois waa Caaro yi ñëw fii des fois waa Bargny Mbuur yëpp ñun tamit dañuy jóge fii dem Mbuur Kayaar Mboora fu ne la ñuy dem ci senegal di liggéey di napp waaw ñu amul amul frontière waaw. lébu yëpp ay mbokk lañ loolu moo tax ñu koy wax. mais mais ñu jëm ci làmb ju mag. soo déggee ma ne la caaro yi ak Bargny parce que dafa am benn waajoo xamante ne moom mooy gone caaro yi muy Lac Rose tudd Serigne Fallou sant yi waaye mu am coince itam nekk gone bari Bargny ñoom ñaari ñëpp nekk ay lébu yéen est-ce xam ngeen ñaari mbër yi. ñaari mbër yi xam naa leen. waaw ndax coince moo dëkk Bargny Euh, kee dëkk Thiaroye ah. waaw xam naa leen bu baax. Lac Rose Fass nekk mais Thiaroye la dëkk. waaw waaw waaw Fass xam nañ ko. mu nekk ñaari libu yooyu yéen ban. jëm Ndar fi ngay gën jege. boo jógee dakaar di dem ba nga jàll Bargny dooraa dem man waa Bargny laa faral wax dëgg yàlla. waaw waaw mais en tant que amateur naka ngay jàngatee bés boobu. waaw bés boobu moom bés bu am solo la ndax bër moom ku xam ñaari xale yooyu daa xam ni lamb jooju dana am solo trop trop trop trop waaw man Quench laa jox favori waaw moom laa jox lu tax ma jox ko mooy xale la te dafa ne ci yoon. di dem non maam ñoom ñaar entre ñoom ñaar. Lac Rose a gën a féete mag. parce que moom la ñu gën a xam ci làmb. waaye bu dee xale bi li ma xam ci moom ndax man damay fréquenté Tëngéej xam naa ne xale bu mu bari la waaw xam naa ko bu baax. Quench ak Lac Rose ku doole. man kii laa jox man lépp kii laa ko jox Quench. doole geeg lépp moom laa ko jox. mais Quench jóge ci ñaari combat yoo xamante ne jël la amu ci mooy digganteegum double moteur ak digganteem ak Diène Kaïré bi est-ce que séntu nga mu jeexee ci bëri wala ci avertissement nga ko séntu. man ci bëri laa laa ko si bëri lay jeex sax incha allah waaw si bëri lay jeex ndax moom warul tegle ñaari ñil. dafa war a bëri pour daan xale la soo bëggee feeñ il faut nga def li nga war a def. mu jeex te xalaat naa ne loolu lay def incha allah ndax mooy sama mbër bon moom laa faral. kontaan naa ci yow. waaw maa ngi gën kontaan naa mais ma jàll ci keneen. ah ancien mbër. ah ancien mbër dina neex a waxtaanal de cheikh bi tur bi nag la. Pape Touré. Pape waaw. Pape Touré noo tuddoon ci làmb. man sama tur nag moom xam nga rek daaw ma fixé. dama daan changé changé rek. xanaa yi doxul woon. boo amee defet rek changé pour palmarès. du loolu sax xam nga gars yi ñoo la koy tuddee. damay ñëw si làmb rek gars yi tuddee la loolu. mais léegi nii moom nekk nañ si ñu ñu ngi si géej gi léegi. mais xam nga ñaari mbër yu war a bëri dimanche diggante ñaari léebu Lac ak Konch yéen kan ngeen considéré ni mooy vrai lébu. man nga kii laa kii nu mu tudd Lac waaw moom laa gën a suivre quoi moom moom wax dëgg yàlla mën na bëri mais bu wàññi woon poids beeg yooyu noonu rek amaana dina mën dem. gis nga ñoom ñaar def nañu seen face à face open press koñ def na ko lagrose Rose mujjeewul am open press ndax xale yu bari yu ñëw ca koñ ba affaire bi débordé mais ñaari mbëri noo leen gisee ci seen ay entraînement forme bu ñu yor actuellement. waaw man ay suñu toll nii man teg man si Lac Rose laay teg waaw. bi moom gis naa ni moom pare na waaw. bëgg na waaw ute naa combat mi weesu quoi. voyage man si li ma gis man pare na. lan mooy avantage Lac Rose ci kaw koñ. waaw avantage bi yëpp mooy na tey rek ndax fi mu jógee la ndax moom dafa doon dem dem beese ak saa rek taxawaat kon buy bërewaat day changé waat bëre tey jàpp jàpp ko booy bi daan ko. kon sa tag je bu mu doon wax et boobu na ko xoolal. loolu bu mu ko dëggal bu mu ko dëggal ndax bu ko xeebee rek mun na ko nax lu ma gis daal moom ñu jël temps am te xam ni moom comme que si bëri la yaakaar mu def nànk jàpp booy bi nànk non waxuma sax dafa tele bëre mais maanaam man kee laa gën a kii daal ndax man sama waa kër yu yenn yi faas nañ dëkk waaw man man foofu laa bokk quoi mhm, sama kër maam moom Pikine la nekk. fii lébu yi nu dundee làmb yi fii yi fii saa nu tëgg mbapat comme bu feet bi passé nii si ñuy tëgg mbapat quelque xam nga yi nekkaat seen liggéey fii moom gaa yi géej gi nañ gën a favori quoi ndax fii. mun nga nekk si bërëb bi nekk si bërëb bi nekk si bërëb mais doo gis si jàppale xëy na boo nekkoon Dakar nii jàppale bi si lay gën a gaaw man sama classe yi yëpp boo gisee mu bàyyi bëri du dugaat si géej gi loolu la ndax da ngay entraînement ba sonn xam nga bëri après lu lay fay du tekk dara xëy na jamono yooyu boo nekkoon dakaar yi heure bi moom mën na fekk ma lekk sax. macha allah ku xool sa avant bras xam ni mbir bu yàqu. waaw waaw noonu la demee léegi nii ñu ngi seen ay suñu soxna ñu ngi suñu gaal waaw di dem. noonu la demee nag. mais kontaan nañ kontaan nañ jërëjëf ñu jàll ci gars yi tamit. eh boy naka mu yaa ngi si jàmm. waaw xam nga Lagros ak Quench. oui. kan moo ëpp doole. Lagros. kan moo dàq bëre. Lagros. ku ëpp mbooloo. Lagros. kuy daan. Lagros mooy daan man maa ko man Masar. man maa ko wax. yow da nga faral Lagros. waaw. billaay wallaay. billaay. Quench nag. Quench na jàll fële ñun Lagros loolu bàyyi. yow xanaa doo waaw man lébu laa yokk cere rek doole jeex billaay wallaay. Eh. waaw. njëkk a fett taxutu bu jëb géew. Eh. wallaay. Eh. Mhm. yow la bokk ak bébé jën. la baa moom dara. ñuuloo dafa am. xanaa doo. <laughs> mais cheikh bi maa lay nuyu lay delloo ziar bu bi naka mu naka géej naat fii ak euh, wax goxu mbaaj ak yooyu. waaw gisoo alhamdulilah nii la <laughs> nu ñuy dundee làmb. waaw làmb waaw fii moom dañ koy dund moom xam nga dëkku Gener Gener la waaw ñoom dañuy dund làmb nice waaw. Mhm. mais euh, diggante Lac Rose ak Quench lan nga ma ciy wax. waaw ah, lu ma la ciy wax ñoom bokkuñu Quench moo ko moo gën a féete xale. waaw moo ko gën a baax moo ko gën a waaw ba pare sama mbokk la. waaw da koy defal bagage comme amu sa wax. ko ñëw da ngay dugg fii taal sa gaal dem ba bari. falaa jógee nii falaa yeewoo nii xanaa gisoo caabi ji oto baa ngi nii gaale maa ngi nii soog a agsi xoolal ñii te ni lañ sol man lu ma sol nii fa laa jóge fa laa yeewoo fa laa ndekkee nii. Quench noo ko gisee fu mu toll nii waajtaayam par rapport ak combat mi weesu parce que gis ne ni combat mi weesu amul jël Lac Rose combat mi weesu mu nekk ay défaite mais waajtaayu Quench. waajtaayu Quench waaw Quench moom macha allah moom ko xool xam ni pare na ci côté bépp. waaw xale la mbër la macha allah waaw. est-ce que Quench war na xeeb Lac Rose combat dafa mel ni ko ko ci xaw a xeeb. waaw da da da gën a dëggal boppam yemuñu boo xoolee rek nga xam ne yemuñu waaw ñoom ñaar sax ba am na nu mu doon demee nii waruñu laalante. kon sa daga war a waaw. da koy gaañ da <laughs> kontaan nañu kontaan nañu. jaajëf waay jaajëf mais ayca bismillah ñu ñu ñu jàll ñu jàll ci keneen ah ba léegi sama gars yi ah. ayca ñëwal nii ñëwal nii compte jour bi waaw. cheikh bi nuyu naa la. ñu ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax sant yàlla alhamdulilah. macha allah xam nga làmb yow bu baax. ah xaw ma làmb de waaye nag comme ni ko sénégalais di seetaanee rek maa ngi koy seetaanee noonu. Lac Rose ak Quench koo ci gën a miin. ñoom ñaar ñëpp comme sénégalais la ñun ñëpp miin nañ leen. waaye nag ci ay yoon. waaw Quench nag dëgg dëgg dëgg moo gën a nekk ci yoon pour Lac Rose. Hmm? waaw. Quench da nga jàpp ñu moo mën Lac Rose. non duñ benn doole yi duñ benn sax. waaw. Quench luy war a kuy war a ñëw ci làmb la xaw ma ndax moom gëm na loolu wala gëm ko. mën na bëre waaw. Lac Rose nag moom mu ngi woon ci yooni làmb wax dëgg yàlla mu ngi woon ci yooni làmb waaye nag toll na benn moment boo xam ne dafa am fraction astafurlah dafa fractionné carrière bi da koo fractionné parce que tolloon na moment boo xam ne mu ngi woon ci yoon mu moom ak ñoom garga mbooseeg yooyu genre bu ci ci dynamique boobu waaye toll na moment boo xam ne nag xaw ma nag dañoo ndi ko xaw ma kon bu koñ si gëmee boppam day daan. amul gëm boppam sax bëre boobu ko yàggul sax. yàggul sax. ndax koñ si mën naa am métteel lan moo ko mën a métti digganteem ak Lac Rose. excès de confiance wala bëre ba wala xeex ba. combat boobu foog moom am xeex. rek du nangu Lac moo dul nangu xeex bi parce que du nangu xeex boobu. non du ko attan te booy bi du ko du ko du ko du du ko du moom ci ay ci xeex. mais am ñaari gétt Fass ak Thiaroye koñ si am bari Bargny tey gëmoo ni Fass mën na def différence ci combat bi. Fass Fass Fass non Fass Fass dafa nekkatul ci làmb. nekkatul ci làmb. neexul ba neexul da ngay laaxut mais nekkatul ci làmb. nekkatul ci làmb. kooku rakib Gris Bordeaux moo fa ne newoon moo fa ne. te kooku attanagul attanagul Fass. déedéet waaw Gris 2 ah, attanagul Fass mm-hmm. waaw. kaddu gu mujj gi ci ci li nga xamante ne mooy làmb en ak yéen fii itam ni ngeen dundee ci ci quartier bi fi mooy sànc ba ak goxu mbaaj ak géej naat nan ngeen di dundee fii ak kaddu gu mujj gi. waaw xanaa di leen ñaanal yàlla rek combat bi yegg jàmm kenn ku ci ne yàlla may ko wér ak wér la rek waaw bëggal amateur yi. macha allah waaw waaye nag Quench moom. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. Quench mbër la de. mu ngi ñëw nag man saalum saalum laa de wax dëgg yàlla waaye nag man Quench du benn sax du benn. état de forme yi sax bokkuñu yaram yi li ñuy liggéeyee sax bokkul waaw waaw yàlla yàlla defal jàmm defal ñoom ñaar ñëpp doomi sénégalais lañ rek waaw kenn ku ci ne ku am ndam it war nga ko cee am wax dëgg yàlla waaye bu jógee bu jógee ci bu jógee fii na mun na defaru rek waaw mun na defaru waat rek waaye waaw waaw jërëjëf père waaw kontaan nañu lagros <laughs> quench waaw lagros lagros waaw ah, baax na waaye kaay kaay sànni si ñaari kaddu <laughs> xoolal daw na bàyyi ko mu daw waa cheikh bi maa ngi leen di ziar booy mooy booy booy naka mu. mii nii rek bàyyi di tolloo. lépp ngi tolloo lépp ngi baax. waaw ah, foofu noonu. mais Lac Rose ak Quench yoo xam nga ñaari mbër yooyu. non non. xamoo leen. non non. yow pare nga bugg a wax ci micro bi ci Lac Rose ak Quench. mais tur boobu ma dégg neex na de. ban tur moo neex. Lac Rose. Quench <laughs> nag. Quench Quench mooy waxi. yow fekkee woo boisson Quench xamoo woon luy boisson Quench yow. non non. kon lu Lac Rose wax Quench yow loolu la nga koy dëggal mooy Quench Quench xewi na. ah tam maam yàlla woon. <laughs> Lac nag yow Lac Rose diggee Lac Rose bi amatul xorom. ankay. Ah. mu ngi saf ba tey. mu ngi saf. Mhm. combat faral. non Lac bu ñu bëree kuy daan. yàlla xam de. bu ñu xeexee. yàlla xam. kan moo dàq xeex. yàlla xam. képp mbooloo. yàlla xam. non mbooloo moom yi mbooloo ñu koy gis. Lac mbooloo. Ah. yàlla xam. Ah. waaw ah, baax na. Lagos ak Quench ku ngeen àndal. Lagos Lagos ak Quench Lagos ak Quench ku ngeen faral. Lagos. Lagos ngeen faral. waaw. xanaa ngeen xamul Quench moo tax. ah Quench leen faral. Ponche Ponche. léegi mu gis ngeen géej nar nag ñëpp ay naanaan leen maire yi nag ñoo gën a doon naanaan waaw mère maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay sant bu baax a baax. macha allah mère fi mooy sanc ba. waaw ñoo sanc bi waaw. macha allah. waaw fii fii naka ngeen di dundee est-ce que dëkk bi neex na. trop hmm. neex na moom. macha allah waaye fan yii moom tabarkaala daal. Hmm. waaw dafa xaw dafa xaw a dëgër tuuti. dafa dëgër waaw ndax seen ndar xam nga géej gi moo ko yor. te mool yaa ngi dem du ñu jàpp benn jën. Hmm. daan toog lu ma 10 jours 5 jours benn yëqu jën duñ ko indi. fare ay millions bu ndee dem xam nga loolu metti na ba tey napp yëpp mool duñu am dara loolu moo nekk ci Ndar. yéen jigéen ñi nan ngeen di dundee seen góor yi da leen di dundee ci géej bi wala da nga leen di xaar bu ñëwee ngeen teral leen tatagal leen. bu baax. parce que ñu ko mérité lañu. mool yi moom ay jàmbaar lañu. Mhm. armée ak mool. Mhm. su ma doon góor moom laay def. Mhm. parce que mucc bu noble la. amuñu benn caaxaan duñu sàccuñ def dara amuñu benn jot ñoo ngi ci liggéey daan seen doole rek yan na leen yàlla teral si barke Seydina Muhammad kon mboolum jullit. nar démb ak nar tey. ndar tey moom metti na. vraiment ndar metti na torop torop ndar metti na góor ñi sonn nañu jigéen ñi ñoo gën a dee góor ñi góor ñi sonn nañu ñu yore seen njaboot yore suñu jëkkër bu nu amulee du leen obligé mais métti na trop métti na trop wax dëgg yàlla ndar métti na lan ngeen di xaar tey ci autorité yi lan ngeen di xaar tey ci ndaw ndar ak ñi ci voyagé diaspora bi yooyu ngeen di xaar ci ñoom ñëpp waaw suñu xale yi moom sunu doom ñëpp des nañ si géej gi ñëpp des nañ ci géej gi ñëpp lab nañ ci géej gi ndax ndar gu métti bu ko seen waa kër yi war takk jabar war leen ñu war yor yor seen waajur war takk jabar war defar seen avenir ndar amul dara ndar amul dara ku añ doo reer doo ndékki métti na trop vraiment métti na xam nga ndar moom pêche bi rek moo ko yor métti na fu métti di yam ndar métti na bu dëgg dee dëgg mais da ngay seetaan làmb xam nga làmb waaw xam naa ko sa mbër man Balla Gaye moo dul sama mbokk doom parce que man sama jëkkër joolaa nag nay def sport mm-hmm. Balla moom ñemewul engagé ay kurfeñ kurfeñ moom du ko def waaw Gris Bordeaux mm. mooy jàmbaar ji Euh, euh, Modou Lo xeexkat la tabarkaal mm. Bombardier macha allah. Mm. Euh, Balla Gaye nag moom mooy sama mbokk doom. Mm. mais daal. mais Balla jàmbaar ji loolu ñoo da géej waaye nga ne ñemeetul. jël maa la wax lii coono. ñemewu ko du xeexkat. bu dëgg dee dëgg rek du xeexkat. kon Eumeu Sène ku gën a nekk jàmbaar nga jàpp. ama seen moom ñemewul moom moom du du du du baaxul dafa gàtt dafa jikk waaw ah, léegi combat bu ñu jëm nii diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène loo ci wax. yàlla baax seen mi ko yoon a bëri le 30 juillet. waaw yàlla baax na gannaaw amu ne day jaaraat ci kawam kon ñoo ngi toog di xaar. waaye dañ bu dëgg dee dëgg ba dëgg. man Balla mooy sama mbër parce que mooy sama ay mbokk doom. Balla lan la war a def pour daan Eumeu Sène du yoon. dara na na naka sifaat naka sifaay ba mu tëdd. yow nga ne Balla ñemewul kurfeñ. <laughs> ñemewul kurfeñ. ba pare musiba wallaahi la azim ñemewul kurfeñ. na dem saal na dem saal na dugg saal. Hmm. parce que góor la na dugg saal. Hmm. waaw. bu entraîné bu baax def box. comme ni Modou Lo du naka boxé man maa la ko xool même Boy Niang day box Boy Niang xeex vraiment. mais maire la maa la wax lii man. mais Modou Lo ak Ama Balde combat boobu. Ama Balde moom it wax dëgg yàlla. Hmm. ah solo ndaw. am naa ci moom yaakaar. waaw maa la wax lii man. mais ak moo diggante ma Gris Bordeaux dina metti de. Gris Bordeaux ak Ama Balde. ñoo war a bëri le 9 juillet. Gris Bordeaux. waaw waaw Gris de moom xeexkat la. xeexkat la moom Gris moom xeexkat la dëgg yàlla. mais yow xam nga Lac Rose Lac Rose ak Quench xam nga ñooñu. lëgrose ak quench xam naa lëgrose mais quench moom xaw ma ko. quench mbir bu ndaw la buy yëg ah, daal bu bees la. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg. lëgrose xam nga ko daal. lëg xam naa ko baax. waaw moom lébu la ñaari lébu ñooy bëre le dimanche bi le 9 euh, le le dimanche 30 euh, avril. ah waaw kon yàlla na ko yàlla mottali. incha allah mais kontaan nañ ci yow. wallaay ma ji kontaan si yéen yéen kenn gënu leen yal na yàlla. kan moo lay daaneel ci bàkk ci làmb bàkk yu njëkk yi ak yu bees yi ku lay daaneel. Euh, ku may daaneel mooy Siteu moom dama xaw mere moo doon sama parce que dafa doon sama rak. Ah. benn la nu ñoom yaa dama ko mere. waaw dama ko mere rek. te eh, ki ngay wax moo la gën xam boppam moom dama ko mere moom bu dëgg day dëgg rek ah. waaw. waaw si te daal xam nga loo gis secret dama ko mere. dama ko mere. ah bee tax waaw dama ko mere rek. <laughs> ku baax na sant yàlla mooy loolu mais lam moom sunu kii la dañ koy seetaan bu baax sax. waaw. mais làmb man Balla mooy sama mbër. waaw 100 pour cent Balla Gaye hmm. waaw. bu baax sax temps yi moom daf ma réer nag. waaw temps yi moom daf ma réer mais sama mbër la. waaw. ah bëriwul de. Hmm. bëriwul moom vraiment moom ah xëy na gars yi ku nekk soog abutik rek. Saint-Louis moom daanak fii ay football wala nga dem géej affaire yooyu noonu mais ay affaire làmb moom wax dégg yàlla mun na fi am mais kiiwul daal bëriwul daal ndax doo fi doo fi toog ba ni ne la tey dimanche la am na stade am na làmb wala affaire yooyu noonu doog fi déggee daal amu fi ay mbappat sax wala ay galan yi yëpp amu fi amu fi daal. ah mun na fi am mais xam nga rek. man moom ay affaire fii laa nekk gës fii gës ma fii lu si ëpp fële lañ koy seetaane rek si tele rek affaire yi waa moo moo waral doo xam affaire seen louis dara quoi waaw mais vraiment moom mbirum làmb moom macha allah. mais dimanche am na làmb dimanche bi. waa incha allah nan yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm rek. Lagros ak Coyens Lagros tamit sama mbër la. waaw ndef ma neex. waaw Fass moom mooy fa moo fay sama mbër. bakkoom ak affaire am caajam affaire yooyu noonu. mais gëj naa bëri. waaw gëj na bëri. gëj na bëri waaw. guddi bi mu tollee si mooy. xam nga ki naa kay. waaw waaw kay mun na bëri booy bu ndaw la. waaw macha allah. naan gëj na bëri en même temps Lac Rose commencé na ci mooy loo Quench daal instant mooy favori quoi. mais kee bu ko jiitoo ci làmb tamit. Quench daal moo gën nekk ci làmb ji waaw nag moo gën féete xale xam bu góorgóorloo daal dina si génn waaw waaw kontaan naa si yow merci. mbër na xam. waay sant bu wér. maa si jàmm bu baax. waaye tey damaa toog ni dal jaamu sulaase waaw. waaw amoon nañ benn mbër gën ndar mais instant bi moom bëreetul quoi. yeneen boy instant bii nag booy instant bii ni ñoom ñëpp danoo teggi tànk ndax làmb fii nii boo xoolee ba si biir def demewu fi noonu quoi ndax lu waral loolu mooy que ni état bi moo si xaw a lii ndax danoo danoo waroon a jàppale ñun fii am stade ñu si ñu fi tëgg làmb quoi ñuy bëre. waaw ay promoteur ak yooyu moom lañ xaw a manqué quoi moom moom buñ sañoon daal dañuy am ku ñu jàppale xam nga ñun ñun ñëpp danoo bëgg a bëre mais mënuñoo dagg di dagg di dem fii ba dakaar xam nga war a bëre dem fii ba Dakar yooyu day jël temps quoi looloo tax mooy lool bala ngaa jóge fi bay dem day fekk presque da ngay tardé quoi mooy lool gis nañu am na lamb yu am dimanche diggante Lac Rose ak Quench kuy favori ci lamb jooju. a ah, man jox naa ko ragloos de waaw xaw ma nag <laughs> man dama xam ni ragloos dafa mën a bëre tey aussi mbër mu teel a xam na nu muy daal te yàgg naa bëre mën naa bëre waaw looloo tax.